tey yaakaar naa ne jombul kenn ci réew mi pour loolu dal la lu ñu dajale fii tey jii yaakaar naa ne jombul benn doomu réew mi ndax bépp doomu aadama biy dund ci kaw suuf rek natt suñu boroom jomb la bépp doomu aadama biy dund ci kaw suuf rek suñu borom jomb la tey jii nag yaakaar naa ne ñu def benn jàkkaarloo ak nga xam ne tey jii mooy presse Sénégal bi ci suñu frère la de Guiers numéro 2 yoon teg ko loxo moo tooñ moo tooñul ñun loolu du suñu domaine li suñu domaine rek mooy day doomu réew mi te bokk ci axlu làmb te ku ne Fadam ne bouché ay produit yu làmb lañu tey jii nag yaakaar naa ne bu loolu amee boobu ba léegi waxaguñ ci mais ñu ngi ci doon def ay démarches ak ay quelques vidéos yoo xam ne ni tey jii pour li gën a concerné rek mooy tey jii Lac de Guiers numéro 2 fa mu nekk solution mën cee am ndax fa mu nekk du mooy cëram. la de guerre numéro 2 fim nek du ceureum du place am ndax yakar na ne bokku na ci litere yi nga xamne ni ci walu lamb mom lañ dan wax ne bokku na ci lamb mbeuri gëna yaru ci lamb bokku na tay ji ci mbeuri nga xamne ni tay ji kenn musko deg ci tokhi doona bokku na ci mbeuri nga xamne ni tay ji bu ñu adressé mbeur na tay ji mbeuri gëna tey seen bop la de guerre ci la bok te bu yalla defé ba yoon top ko ñu am luñu ko jiñ moko def wala defuko tay ji lepp luñ ci def moy ñu ngi massaw ñi nga xam ne tey jii dañ ne ñoom la Lac de Guiers numéro 2 siqal te yaakaar naa ne tey jii masawu googu ñu leen di masawu alal dafa sax ci xol ak képp ku mënti doon nga mës a siq ak Lac de Guiers numéro 2 dara ñu ngi sukk suñuy tànk di la jéggalu ak lépp lu ci mënti am ak lépp lu xam ne tey jii moom lañ bëgg a développé mooy gis nañ ay monde tamit ci monde làmb ay journaliste làmb yoo xam ne nii tey jii communication yi ñu ci def rafetluwuñu ko li tax rafetluwuñ ko mooy biñ ko communiqué dafa dugg ci tey jii moo gën a aggravé problème mu Lac de Guiers numéro 2. te loolu tamit nit bu nekkee ci wàllu yoon bu doomu aadama di ci wax na ci wax loo xam ne nii moom la maîtriser leneen lu mu ci maîtriser wut mu toog xaar ba am ci lum ci maîtriser mu doog koy wax. tey jii nag la de Guiers numéro li tax tey jii ñu gën a def jotaay bi balaa ma cee ñëw damay bàyyi buusu këccëg nuyoo ñu doog ñëw ci waxtaan wi après lépp lu ci mënti am rek ñu daal di koy àggale ak message yi ñu bëgg a lancer tey. waaw salaamaaleykum ah maa ngi nuyu ñëpp di siaare ñëpp di nuyu presse sénégalaise bi yëpp ah di leen wax ni lii man sax musumaa def lii ay conférence de presse waaye nag nit ku nekk am nga ay mbokk te ñun la degeer buñ naan ay mbokkam ñun ñii la ndax ñun ñoo nekk ak moom géejewaay ñoo dëkk ak moom géejewaay bokk ak moom làmb ji mu nekk nit koo xam ni bi làmb sosoo ba tey kenn mosu ko dégg ci lu ñaaw kenn mosu ko dégg mu wax lu ñaaw wala mu def ko tey am na yoo xam ni nag yàlla moo koy teg doomu aadama muy nattu jomm ma jommul fadam te jommul kenn ci yéen ñi fi taxaw te kum ci daloon tamit lii ñu def nii di nga bëgg ñu defal la wala ñu jàppale la wala nit ñi wàllu la te la nag ay mbokkam mooy waa ay mbokkam mooy ñi mu ay mbokkam mooy ñi mu doon sekkal liggéey te ñun ñii génnuñ ci te lii ñuy def nii dañ ko def ak xol def ko ak yéene def ko di ñaan yàlla nag mu réussir balaa ay fan ndax loolu moo ñu war loolu ci la ñuy dox mais dañuy ñaan rek àdduna bépp ñaanal Lac de ba pare taxawu ko surtout waa làmb parce que amuñu lu ñuy lu ñuy leem-leemal wala lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy naxtaan amul Lac de ci làmb la bokk tey amaana am na mbër yoo xam ne tey bu doon lii da na a arrivé tey waa làmb yëpp jóg nañ dama koy njëkkee ci waa CNG nañu génn dooleel Lac de Guiers taxawu ko te taxawu nag du rek la de war naa taxaw tribunal rek àdduna bi yëpp màbb dem tribunal taxaw fa coow li bari riir mi bari ku nekk di wax sa wax ku nekk di génnee sa téléphone di filmer ku ne di wane ni man maa ngi tribunal ku ne di wane ni ba muy taxaw taxaw naa fa loolu du waxti wax di leen rek la wàllu yoon dafa sew te nag yoon bu bu si nit nekkee dañuy nangu ni yoon la te yoon day def liggéeyam ba pare kenn bañ a wax dara waaye am nañu droit ñaan yoon am nañu droit ñaan nit ñi ñu jàpp ci am nañu droit def ay pexe te ay pexe nag du wees na la de guerre bi mu fa nekkeek léegi mi ngi bëgg a yàgg te boo gisee ni boo communication bi dafa sooxe biñ ko biñ ko jàppee ba tey kenn waxatu ci ñëpp a ngi ko fàtte ñëpp a ngi ko bàyyi foofu ku nekk di dox si doxi bopp loolu du yoon te la de guerre ci làmb la bokk na ñëpp génn waa làmb nañu génn jàppale la de guerre ah bu dee moo tooñ ñu baalul ko te li mu tooñee ñu jàppale ko jéem a xool nu ñu ko fajee bu fekkee tooñul ñu xool ndax tooñul ñu jéem koo jëlee fële loolooy adduna parce que nit ki bu nekkee bu mënalul boppam rek yow mi nga xam ne yaa ko mënal da nga koy jàppale ba bis boo leen taxawee doo rus ba wala bis boo leen taxawee dina xam ni kii kat yàlla def na ni sama mbokk la te nag mbokk kenn du ko forcer mbokk day naturel te li mu naturel mooy ñoo bokk làmb ji ñoo bokk lépp na làmb génn ndax la dëgër amul lu dul làmb yaa ngi dégg fii lañ ko doon jox ay trophée gën a yaroog trophée du saaga du xuloo du xeex trophée discipline lu la jox nañ ko ko fi léegi trophée yooyu nag pour ñu wane ni trophée yi dëgg la pour ñuy wone ni trophée yi lu wóor la na waa làmb génn di ci woo waa CNG ñu njëkkee ci parce que ñoom ñooy suñuy njiit ñoom ñooy suñuy nguur nañu génn mbër yi génn promoteurs yi génn arbitre yi génn waa làmb yëpp génn presse bi yëpp génn parce que presse bu ci nekk tamit la dëgër mës na la ji teraanga ndax utiliser nga image pour ñu fay la weer kon na ñëpp di wax ci moom lu baax ñëpp jàppale ko ñu jéem a ñaan yàlla mu génn fële mu ne ci lool lañ ne nii te loolu lañ taxawee nii. yaakaar naa ne loolu am na solo foofu buuse génn am na solo trop mais man point bi may ñëwaat rek mooy point bi ñu gën a war a mën a bàyyi xel semaine yi ñu génne def nañ ci benn vidéo boo xam ne nii vidéo bu am solo la ba am na ay kilifa yoo xam ne nii tey jii seetaan nañ ko am na ay moyens yu ñu ko ba mu vingt cinq millions. jox nañ ko ci nga xam ne tey jii ñooy waajuru Lac de Guiers numéro 2. suñu papa Alaaji Bekaay Mbay ñu ngi ko ci sant bu baax ndax yaakaar naa ne tey jii loolu bu amee tamit bi mu jógee ci ay loxo ci ay loxoom la jaar ba Alaaji Bekaay Mbay mi nga xam ne nii mooy suñu père Bekaay xaalis boobu àgg na ci famille Lac de Guiers numéro 2 mi 25 millions. mais 25 millions yooyu doyul dañoo bëgg képp koo xam ne ni autorité nga ci réew mi dañoo bëgg képp koo xam ne nii kilifa nga ci réew mi dañoo bëgg képp koo xam ne nii tey jii làmb mës na laa defal dara. tey ji dafa am ay ñoo xam ni tey ji ay kilifa lañ ci réew mi te ñun waa làmb kilifa yooyu fu ñu mosaan a tourné dañ leen di gis te ñooñu ak Lac de Guiers numéro yàgg nañoo seq ay teranga ñun wootewuñu ngir tey jii lenn loo xam ne ni tey jii dañoo ñëw pour bras de fer ay ndaw lañ yoo xam ne ni tey dañoo nekk ci réew mi ñu am suñu frère bu tudd Lac de Guiers numéro 2 mu nekk foo xam ne ni tey jii guddi yi mu toll ndimbal rek la soxla soxlawul moo def soxlawul deful benn problème lañ am suñu diggante ak moom mooy ñala dëgër siqal ñun balaa dara xew dinañ leen fay duñ leen fay dañu leen di jéggalu ci li am seen diggante ak la dëgër numéro 2 ba pare ñu ñaan leen ñu yàlla may leen xolu muñ ñu xam ne tamit tey ji kilifa yi nekk ci réew mi képp ku am teranga boo mën a jàppale la dëgër numéro 2 nga bañ koo def sax ñu médiatiser ko moo gën nga woo ku mel ni papa as mbay Mbaye nga xam ne tey jii kilifa yi njëkk a ci loxoom la ñu jaar nga woo alaaji Bekaay jaar moom ci suuf mu woo ay waajuru Lac de Guiers numéro ñu jaar fañ daan jaar ndaxte tey jii fu 25 millions dugg buuse bu fa leneen duggee. Lac de Guiers numéro 2 la fa des dootu bareeti te loolu yéen tëwu leen yéen kilifa yi waa làmb rek. waa làmb rek loolu tëwu leen waa bu kenn joxee 100000 ku si ne bu joxee 100000 rek bor ba jeex. waa làmb rek. waaw kon nag. mais forcé wuñ ci kenn. Mhm. waxuñu ci kenn lenn. nit nag ndimbal na ca fekk loxo yi borom tëgg la waaye nit mënta ne fa mu ne fële di jàppale boppam. ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci biti ñoo koy jàppale te dinañ ci wax ba mu sotti incha allah rabbi comme ni ko Fadam waxee rek vingt 25 millions yooyu Alaaji bakaay Mbay jël na ko jóg jébbal ko mbokki la de Guiers loolu ñu ngi ciy gërëm kilifa gi ko def te bugg ci feeñ bugg ci ñu wax turam te noonu ñu ko waxee noonu keneen ku ci jàppaat kenn du wax sa tur kenn du la tudd kenn du la wax lenn te boo ci bëggee jàpp mën nga cee jàpp Alaaji Bekaay may mi ngi fi boo ko woowee téléphone dina la fekk fi nga ne loo koy jox nga jox ko mu jàppale ko la dëgër de parce que tamit ñi bu fekkee la dëgër de ñi mu tooñ dëgg la ñu ngi leen di jéggaluwaat bu baax a baax a baax di leen ñaan ñu jéggal ko di leen ñaan tamit ñu jéem a xool nuñ ko rafetalee ba la dëgër jógee fële mu ne te xam naa ne la dëgër de même bu bor bi matul ñu bàyyi ko la dëgër dawul duggul fenn demul dikkul fii lay toog ndax nit koo xam ne la àdduna bépp xam nañ ko mënul daw dem fenn mënul bàyyi làmb te saa yu jëlee avance mën na leen a fay ba mu jeex kon nañu xool nu mu rafetee ñu xool nu ñu ko jàppale bala dëggee delluwaat ci ay mbokkam parce que ginnaaw yàlla ak yonent bi ay mbokkam moom la ñu yaakaar ndax moom moo fay góor te moom mooy jàppale papaam boobu ba tey nañ ko ñaanal yàlla mu génn wax ji bañ a bari polémique bi bañ a bari koo laaj mu naan la 60 million ah, di yuuxu def te kenn leeru ci kenn kenn xamul la dëgër de lu mu leen yoral kenn xamul ban problème la am ak ñoom kenn xamul lenn boo ñu naan lii ak lii ak lii kenn xamul lan lañ jotee xam nga foofu sax dañuy tatone rek nañ bàyyi yooyu yàq doomu aadama baaxul foofu foofu <laughs> dama fi wax benn benn benn benn benn benn benn benn point ngir yàlla ak yeneen bi bu doomu aadama amatee problème bu ñu bëgg ay vie ci micro yii ba tax ñuy génn di tudd ay somu xaalis yoo xam ne ñun xamuñ ci dara nañu bàyyi di yàq gor ñi ak képp ku mënti doon li ngay dégg ci biti ak li am ci biir du benn am na loo xam ne ni tey jii diggante Lac de Guiers numéro 2 ak ña ko def yoonu Lac de Guiers numéro 2 new ci mais mooy borom tur te borom tur lu ko dugal dafay yomb Lac de Guiers numéro 2 nag li mu gën a soxla guddi yi ñu toll mooy solution tey jii li Boucher wax dëgg la am na lii ko dal nii bu daloon yeneen mbëri du puus du paas te fayuñ ko. am na yenn mbër yoo xam am na mbër xam ne bu leen daloon du ñu puus te paas fayuñ ko waaye code de popularité yooyu mbëri am Lac de Guiers amu ko. li la dëgër am mooy ay rakkam ay frère ñu mel ni ñun ñu ngi taxaw di wax monde làmb ak kilifa yi nga xam ne buusi mos ñëw siq ak waa làmb am na ñoo xam ne ni bëgg nañoo dimbale Lac de Guiers numéro 2 mais xamuñ fu ñuy jaar ak képp ku bëgg dimbale Lac de Guiers de 2 numéro alaaji Mbay lu yomb la as Bekaay Mbay Sénégal gépp xam nañ ko ñi njëkk ñëw muy kilifa gi nga xam ne moo dimbale Lac de Guiers numéro 2 vingt cinq millions ci loxo alaaji la jaar ci seen jaaraat leen foofu ngeen woo alaaji Bécaye la ngeen koy dimbalee muy doon guddi alaaji Bécaye jël ko yóbbu ko guddi kenn bañ koo xam ndax Lac de Guiers numéro 2 fii mu toll mooy fii fi mu toll mooy fi ndaw di gën a soxlaa ko ko soxla mooy ki nga xam ne tey jii ndaw bu amee problème li muy gën a soxla mooy ku ñëw taxaw ko sénégalais ak képp ku mu mënti doon ku mës liggéey ci image du Lac de Guiers numéro 2 ngay journaliste su lamb di people di ku mu mënti doon jot na nga ñëw taxaw ko te ciy wax lu rafet boo ci mënta lu rafet nga noppi ci tam ci problème mu jàmbur mais gars yi tey jii bëri na li gën a aggravé affaire yi mooy tey ay journalistes yoo xam ne nii génn nañ tudd benn somme boo xam ne ni loolu amul te tey jii loolu da koo yóbbu ci benn niveau boo xam ne affaire bi àggu fa woon li ñuy wax te jógeen ko gën a wax mooy Lac de ni ma 2 fee mu nekk jombul kenn Lac de Guiers ma 2 fee mu toog na le jombul kenn waaye nag yaakaar naa ne nit la koo xam ne nii ci àddunaam mosuñoo dégg Lac de Guiers numéro 2 ci benn problème mosu ñoo dégg Lac de Guiers numéro 2 ci ñoo dégg Lac de Guiers numéro 2 moo dóor nit moo dox lu ñaaw tey jii yàlla moo ko nattu teg ko coono gii lu ñu mën ay doomu aadama yi nga xam ne comme suñu borom moo leen bind ñoo mën a war a mën a taxawaat seedeel Lac de Guiers numéro 2 lan mooy jukkoom li ñuy gën a soxla buus yi am na ay kilifa yoo xam nga leen xam naa leen te ñooñu jot na tey ñu woo leen ñu ñëw taxaw seen frère Lac de Guiers numéro 2 te ñoo ñu ngi ci réew mi buus te a dugg nii mais te incha xam naa ne fii fan yi néew dinañ ci jàpp bu dëgër a dëgër te buñ ci jàppee li ciy des du bari incha allah lii nag man maa ngi ciy gërëm personnellement Balla gay 2 ndax moom xel du doy bi ma ko woowee téléphone nekko ko la dëgër laa war a dem seeti mercredi parce que man suba laa am ci moom audience pour dem seeti ko def ne ma man li ma gënuloon sax mooy nga génn communiqué ci te bi mu demee communiqué ci laa bàyyi xel ni war naa mën a def conférence de presse man lii conférence de presse musuma ko def ci laa ci waxtaan ak Fadam fanam ñew ñu wo mass dakar life mass duggal ko seen groupe presse bi ba tay ngeen ñew ma lañ ci sante bu baax kon ballagay de fi mu nekk ne la amna lu ko metti trop trop trop man leer na ma ni bu fi nekkon conférence de presse bi mo koy def nak idem la kon mang koy ñaanal yalla diko ñaanal wër diko wax aduna ni rek la sa mbokk julit sa mbokk talibé sa mbokk sans bu amé problème dang ci taxaw di xol yan idée ngay def bam soti la de guerre nit ku bax la la de guerre bam dekké guedjo way ba tay kenn déggu ko ci dara du xeex du xuloo amul ak problème kenn làmb ji da nga koy saaga da nga koy wax lu ne la dëgër boo seetloo signature contrat am yëpp ku muy signal yaa koy agressé di ko wax lu nekk di ko def lu nekk te du bougé du def dara parce que bëggul yàq làmb léegi nag bu demee ku mel noonu buy defar làmb ba egg si fii tey ndogal lii dal ko warul woon yegg si fii tey waa làmb nañu génn jàppale Lac de Guiers 2 waa làmb nañu génn taxawul Lac de Guiers waa làmb nañu génn soutenir Lac de suñu kilifa yi nañu génn dooleel la de Guiers yoon nag kenn du xëccoog moom yoon lu mu wax yoon la dañ koy nangu far force fara force waaye ñu ngi ñaan procureur juge ñëpp ñu jàpp ci te yàlla tax ñu jéem a waxtaan ak ñi nga xam ne tey ñoom ñooy ñii la de joteel ñu jéem a wàññi lépp jéem a jàppale Lac de mu génn parce que fee mu nekk ne le neew ñu waru faa dem nax ña fa ne gënu leen ña ne gënu leen judd gënu leen dara waaye yàlla mooy jogal waaye man xam naa ne Lac de fee mu ne du place am place am mooy simit kon yàlla ko yàlla jàppale yàlla taxawu ko yàlla dimbali ko man suba incha allah laa ko war seeti bu neexee yàlla ak yonent bi te bu ma demee incha allah dinañu waxtaan bu baax a baax a baax lii moo waraloon sama toogaay tey fii am na solo ñun li ñu tàggatoo ñu ngi nuyu président écurie Walo mu ngi ni taxaw mooy ki nga xam ne tey ji mooy président écurie am mu ngi ni suñu ginnaaw nekk nit ku modeste mën na ñëw waaw mën na ñëw ngay ne nga ñëw sànni ci ñaari baat nga xam ne tey ji gars yi mën la am waaw loolu am na solo mais daal li ñuy wax te ñëpp mën ko dégg mooy ñëwuñu ngir song yoon ñëwuñu ngir wax na yoon la dëgër dañ koo tooñ ñëwuñu wax pour yoon daa tooñ la dëgër de li ñuy wax ay ndaw lañu yoo xam ne ni tey jii dañoo gis benn doomu sénégalais bu tudd Lac de Guiers numéro 2 bi mu juddoo ba léegi kenn mosu koo dégg ci benn détail bépp monde lamb képp ku nekk ci monde lamb bu ma waxee bu sa wax mel na ni waxal nañ leen waxal nañu CNG waxal nañ amateuru làmb yi waxal nañ supporters yi waxal nañu mbër yi tey ji ak waaw aca ñëwal léegi waaw kon tey daal ñu ngi ciy jégalu baax waaw loolu loolu loolu ci benn point la boo xam ne agent am agent wu Sadio Mané jaru ñu tudd xam nañ ko. du agent waaw. waaw agent am benn structure la. bu la dëgër mës a dem. waaw xaw ma des sport xaw ma. des sport ñooñu. la dëgër dafa mës a dem visiter leen. Mhm. Euh, soutenir leen jàppale leen bi ñuy door. Mhm. ñooñu ñoo dem jël benn dix millions jàppale ko la dëgër. Mhm. du du Sadio Mané du kenn. du Sadio Mané sax agent am génn di démentir loolu. kon nañuy bañ a nañuy bàyyi di wax lu leen wóorul moo tax lu bëri ki ngay bëri na wax ci am nii xam nga yu bëri loolu amu ci waaw nañu bàyyi wax lu leen wóorul waaw wala di yàq doomu aadama wala di di yàqamte nit dara dal ko pour pour pour am buzz wala pour am coow mm-hmm. di ci dugal seen làmmiñ loolu baaxul parce que liy dal nit chaque jour mën na laa dal

te loolu moo ko gën a rey moo tax tey jii doomu aadama bu nekk képp koy mët di séqal wala ngay ànd ni na nga xam fan ngay yem moom rawatina yow mi ànd nga am image loolu am na xool benn waaw loolu war na mën a ne tey CNG bu ñu organiser woon tey. xaalis bi ñuy dagg mbër yi xaalis bi ñuy bi ñuy li ci gën a garaaw sax avant ñuy tëj nit kaso kenn yéenewul nit kaso mhm. ndax benn mbër ñëwul di bëre naan buñ ma tëjee CNG jàppale ma li ci gën a mooy yor assurance su mbër mi mhm. mbër mi buy bëre looloo gën a tuuti te CNG fi mu nekk nii gëm naa ni defuñu ko mooy assuré benn fan la lay assuré mooy jour làmb ci làmb boo ko xasee ba jël ba am licence muy Europe États-Unis fépp normalement dañ la war a assuré pendant et làmb ci dañ la war a assuré parce que tey bu balaa combat bi mën ngaa gaañu dañ la war a assurer parce que da nga dagg ba biir làmb ji dañ la war a assurer boo bëree ba pare ñu toj ñu teg ci ay deux mois wala un mois pour assurer la xool ba xam yow ndax nit mën na bëree tëccu te du xam ne dafa tëccu nit mën na bëre gaañu te du xam ne dafa gaañu après la koy sentir kon CNG balaa dara balaa ay euh, jàppale nit ay kasoog yooyu lii mooy njëkk loo xam ne CNG war na ko def kon war na def tamit mbër yi xaalis bi ñu leen di dagg yooyu yëpp ñu ciy génnee benn somme parce que dagg mbër ay 4 millions dagg mbër ay 5 millions dagg mbër ay 6 millions te mbër yi ku ci am problème du gis xaalis boobu. ku ci am problème 100 francs la ko ci jox loolu c'est trop c'est trop. mais xam nga tey jii non démarche yooyu ñoom tey jii CNG mooy njiitu làmb ni nga mën a def ba tey jii mbër mi buy bëri ci yow lay sukkandiku. ni nga mën a def ba mbër mi bu am licence ci yow la sukkandiku ni nga mën a def ba mbër mi bu tey jii bu ñëwul heure nga dagg ko kooku tey jii war ngaa mën a am loo garanti ci vie am dara mais c'est grave amul dara lu ñu garanti ci vie wu mbër c'est grave amul dara mais nag loolu faute bi yëpp waa làmb la faute bi yëpp waa làmb la tey jii tey jii lépp lu am ci làmb muy CNG di promoteur di ku mënti doon mbër moo ko fa bàyyi mbër mi ko fa bàyyi lan la am ci làmb mooy Lac de Guiers numéro 2 avant kenn def ci moom ñaar dërëm CNG ñoo waroon décoloré benn moyen ne tey jii liire de ñoo ko jëlee ci biir làmb ak liggéey bi ñuy liggéey ci làmb ñun waa CNG ñoo ko jàppale Lac de Guiers numéro 2 mais tey jii ak ku mu doon boo feebaroon bay tëdd hôpital tamit CNG amul dara loo xam mën naa taxaw jël la en charge wala dara mbër bu tardé ñu dagg ko mbër bu tardé ñu dagg ko bu débordé ñu dagg ko bu yéexee ñu dagg ko avertissement ñu dagg ko coow ñu dagg ko CNG bu juumee sax ci ci bu juumee ci site bi site bi ngay bëre ba ñu juum mbër mooy joxe war xaalis pour ñu ñu revoir defet kii boobu vito recours bi recours bi mooy joxe war xaalis vingt cinq mille vingt cinq mille pour ñu xool ndax daan naam daanul kon léegi CNG moom léegi moom lan mooy rolom moom moom léegi moom moom da moom léegi moom kon léegi mbër mi moom mooy ñaaw njemb ñaaw nday ñaaw baay mbër mi nañu waxante dëgg yow mbër mi la ñuy dagg bu juumee mooy fay lu mu def mooy fay lu mu def dina ko du dëgg lu mu def ñu ne ko du yoon ñoom léegi ñoom lan lañ ñoom lan lañ ñu apporté ñun. ñun dañu yor licence di bëre. licence sax bu dañu bokk ci làmb. jeex na làmb da ñoom ñoo ñu war a jàppale. xaalis boobu nañu xool di ci jàppale doomu aadama yi parce que am na fa te ñu koy dagg Lac de Guiers dagg nañ Lac de ay millions yi million dagg nañ ma mii man mi dagg nañ ma man mi ndaw mi dagg nañ ma bay bëgg a dee man dagg nañ Balla Gaye 2 ay millions Balla Gaye li ñu ko dagg contre booy Niang kenn xamul lu mu toll li ñu ko dagg contre Gris Bordeaux kenn xamul lu mu toll te combat ma Gris Bordeaux moo dàq ca àdduna bi te xoolal dañ koo dagg dagg dagg ba muy miir yaa ngi dégg këram laa dem fajar gi gis ko mu toog jàpp bopp bi ma ne ko lan la mu nem ma lañ ma dagg keneen ak keneen Gris Bordeaux boo ko woon léegi bu la waxee léegi xaalis boobu yëpp léegi bu ñu jàppee kenn wala mu feebar xoolal booy kase kooku moom gën a ci làmb benn champion ñu naan ko kase paralysé la def kenn waxatul ci ay waxam loolu dafa ma metti ci làmb Jules de Junior yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana bi mu faale bi mu feebaree kenn taxawu ko ci làmb yooyu dafa ñaaw waaw mais nag foofu man maa ko tontu quoi nga mbëri tey jii làmb dafa toll foo xam ne nii ñoom ñun lu tax ñu ciy wax nekkul ne kii géejawaay la dëkk nekkul ne man da ko mosoon naa géejawaay dañ ciy wax en tant que làmb dañuy wax en tant lu ñu war dañ ciy wax en tant que tey jii man la dëgër numéro 2 bu génnee kaso sax di bëriwaat ci làmb nañ doon bras de fer maam moom laay bras de fer ak moom li ma bëgg a wax dama koy wax dama koy ton mais dañ koy wax en tant que nit ak mbokkam mbër mbëri ñoom bu fekkee ne tey jii am nañu lu dal seen moroom ñoom bu ñu génn wax loolu ñoom la concerné ñun li ñu concerné mooy li ñu war mooy li ñu war a mën a jàppale Lac de Guiers numéro ndax gis nañu tey ji ay influenceur u làmb lañu ci làmb la ñu nekk di wax nit ñi duñu déglu tey bu dara dalee nit ci làmb balaa tey kenn wax ñun ñoo ci war a njëkk a jóg Lac de Guiers numéro 2 fii mu toll soxna si mooy solution la ñu bëgg te solution boobu dañu koy ñaan état bu Sénégal nañu jàppale Lac de Guiers numéro 2 mu dellu siwaat ndax monument la biir géejawaay mbër la moo xam ne heure bii nii ñu ko téye nii rek bu ñu ko bàyyi woon ci benn fan mën na ci jël kese boo xam ne nii li ñu koy wax mën na ko yor yëpp mën na ko fay kon tey ji ko ku war a fay bor boo ko téyee kon kooku mayoo ko possibilité pour mu fay bor léegi nag gis nañ ne am na ay nit yu ci dugal ay moyens dañuy ñaan autorités yi yi nga xam ne nii géejawaay la ñu dëkk ñii parcelle ñii yaraax ñii fu nekk ku ci mën a dimbale Lac de Guiers numéro 2 na nga ko jaarale ci alaaji Bekaay Mbay nu mu gën a gaawee loo koy dimbale mu nekk loo xam ne guddi lañ ko def ñu def ko sutura alaaji Bekaay jël ko yóbbu ci ñu mën a jël la xam ne moom la yorloon nit ñu daal di koy teg ne mu mën a fay bor yi mën a dellu siwaat ci kanam mu njabootam ndax ku ci nekk loo yéene nit rek suñu borom mën laa dall mu dal mu dal la te bu la dalee ku la taxaw rek ngay bëgg loolu rek a tax maa ngi ñaan sénégalais yëpp ak lu làmb ak waa géejawaay waa waalo écurie waalo écurie Mor Fadam écurie Papa Kane écurie Ndiaga yëpp ak président yeeg waay ñoom paateeg ñoom may ngaylu mag ñëpp waaw ñëpp nañ génn def conférence de presse ñaan nit ñi ñu baax ñu jàppale la de ñaan justice ñaan ñi nga xam ne ñoo ñoo joteeg Lac de Guiers di mën a dé ñu jéggal ko mu nekk loo xam ne dina rafet na ñëpp génn bu ñu koy defee arène national nañ ko fa defee bu ñu koy defee parcelle dañ ko fa defee ñëpp nañu génn soutenir ko maa ngi woo mbër yëpp ah suba gars yi dañ ko def waaw suba dañ koy def ñoom waa arène nationale alhamdulilah mm-hmm. suba na ñëpp génn dem arène national ñu soutenir Lac de Guiers yaa ngi dégg yalla jàppale ko fi mu génn fee mu nekk ne parce que fee mu nekk du place am parce que la dëgg daa bokk ci làmb jeudi jaajëf jërë ngeen jëf kon jërëjëf